Sëriñ Tuubaa daana wax ne dee leen bari teggin leen bari ay teggin ndax bu teggin jóge eh, ak bu teggin jógee bu teggin jógee dee leen bari teggin leen bari ay teggin ndax bu teggin jóge gudd fan ne ko doomu fi bàyyi àjjal ne ko ma teeru leen dalal leen waaye ne dee leen mooy safaan ba ndax bu jóge gàttu fa ne ko doom fi bàyyi sawara ne ko ma teeru leen dalal leen kon dee leen mooy tooñ ndax kuy tooñ du mujj waaye kuy fay yu du ñoŋ daal ne dee leen mooy gis seen bopp ndax ku gis sa bopp yàlla réer la te ku seytaane ku yàlla réer seytaane moo lay wommat te seytaane ku mu wommat ca safaan ba la la jëme sëriñ Souhaïbou Mbacké nee na am na ku mas a ñëw ci sëriñ bi am na ku mas a ñëw ci sëriñ bi jox ko aw fas jox ko aw fas hadiya sëriñ bi ne ko sëriñ bi ne ko nee leen ko na jege si ma jox ko sàll wu gën moom yoroon daal di koy tombal ñetti tomb daal di koy tombal ñetti tomb ne ko li mat a def ne ko li mat a def ak li matul a def ak li ëpp a def li ma ta def mooy jaamu yàlla ndax moo lay may àjjana musal la ci sawara li mëtu la def nag mooy fo ndax du la may dara du la musal ci dara li ëpp def nag bu ko saxaar sax xalaat mooy def lu naqar yàlla wal iyaasu billahi taala nee na Sëriñ Tuubaa daraan wax ne ab jullit ab jullit li ko war mooy muñ ak sant yàlla ndax nee na suñu borom ba mu bindee wërsëg ci azal da koo xaaj juróom-ñeent ki xaaj ak juróom-ñeent benn bi rek la wàcce ci àdduna da ci des lépp ëllëg moo tax a jóg dañ ne dërëm boobu nag mu néew a koy bari ñëpp ko bokk ke njëkk a juddu ba kenn nar a mujj a juddu nee kon nag ndono la ndono nag dafa laaj séddale te séddale dafa laaj ak maandu nee na sunu borom moo tax mu dénk tubaab yi àdduna moo tax nag jullit bi li ko war mooy muñ ak sant ndax la muy am ci dërëm baagus néew lu toll nag taxu boo lëggee yéefar bi du am ci lële tubaab yi borom da leen may ba dañoo xam àdduna ba luñ ci xamul rek amul njariñ waaye àllaaxira itam da leen ump ba luñ ci xam rek amul njariñ asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.